projet bi bo xolé bo buñu ñu def tey bilan ci région de Kaffrine amnañ nañ fi juróom euh, juróom benn euh, pôle multiservice pôle multiservice moy bâtiment bu mag la bu nga xam ne am 500 tonnes euh ak ben ak ben bureau ak ay toilettes mais tamit mu am ben unité euh pôle bu nek dé am ben unité tamit unité de de prétraitement unité bi nak day équipé wu unité bi mu may permettre nit ñi ñu mëna am comment dirais là dugub bu mu ci ay dugub bu set. Euh, ci kaw loolu tamit euh, projet bi def na fii euh, unité de référence fini nii ci bir Kaffrine bi nga amné ne day permettre nit ñi ñu mëna def transformation bu ci ayib lénen li moy que dañu agir ci li ñu euh emballage craft manam emballage en papier té lolou lu am solo la ci gestion de l'environnement xam nga mbuusu plastique yi bu dee dañ koy dañ koy jëfandu bu yàggee euh, mun a indi loraange ci euh, environnement bi donc emballage yooyu lu euh, yooyu lañ taxawal donte sax loolu lawul fépp mais liggéey la bu nga xam ne bi moom war nañ ko mun a keneen bu ñëwee wala ñeneen wala wala ñi ko sekk ñu ngi ko sekkal war nañ ko mun a continuer leneen li beneen innovation bi mooy que tey jii lépp loo béy bu dee bu dee jaayoo ko day am gàllankoor waaye léeg-léeg Euh, dugub dafa xaw a compliqué euh, dugub mel ni ceeb xam nga bu dee ceeb euh, mun nga ko jël rek dem sóor rek lekk waaye dugub moom léeg-léeg day compliqué parce que il faut nga wol ko il faut nga def ko sunguf il faut que nga araw ko mooñ ainsi de suite balaa ngay balaa balaa nga koy mën a lekk donc maanaam processus bi dafa gudd ñu créé leneen li nga xam ne day tax ba lekk bi mun a gaaw naka la lekk bi mun a gaawee cela veut dire parce que tout simplement dañoo créé li ñu tuddee cantine fondée maanaam cantine fondée yooyu dina tax ba képp ku mënut a defar léegi léegi wala képp ki nga xam ne kii moom euh, euh, dafa am xew mun na fa dem dem am euh, dem jënd du jënd dem jënd lu ñu defar ba pare li xam ne dafa sotti. loolu cantine yooyu bu dee bàyyi nañ ko ci loxo coopérative yi buñ demee ba ci kanam loolu mun na doon suñu McDonald local maanaam tey jii boobu dee boo gubbee fast food. comme que fas bu euh, au lieu que ñuy jaay yeneen nii mais dangay dem foofu rapidement nga am sa kaas nga naan sa fonde nga dem donc innovation yooyu lañ def pour mun a créer ay emploi ci biir chaîne de valeur bi maanaam yemuñu ci euh, ci cadre projet jàngale xamle ainsi de suite waaye dañ lay jàngal ba pare ñu permettre la ci li nga jàng noonu nga mun ci am liggéey am ci xaalis. Euh, ci wàllu ay nit boo jëlee béykat yi. Euh, parce que nous sommes des ci village pour nous, faire pour euh, production nous avons touché à peu près 9000 9000 nous nous, nous ngi répartir euh, ci juróom ben pôle multiservice pôle yi pour dugg fofu nak ñom béykat yi xam nañ ko da ngay def ben inscription c'est motam sérieux ça, inscription ak ak ñoom transformatrices yi dem à peu près une quinzaine vingtaine de coopératives vingtaine de d'unités de comment là euh, d'unité de transformation il n'est au niveau de au niveau de Kaffrine Donc mais région de Kaffrine en fait donc si da en pesant euh, nga jël à peu près 20 personnes par euh, par par par par unité Vous nga autour d'une centaine de personnes qui sont directement touchées sans compter sa famille ak il seen cantinières yi am 15 quinze cantinières euh, cantinière cantine bu nek day ëmb na ba ñaar ñaar euh, ñaar nit yeneen gox yi ñetti nit donc euh, ce qui veut dire à peu près 30 personnes mën nañ liggéey ci ci cantine yooyu en fait. lu leen di demander rek mooy nañ nañ continuer maanaam liñ ñu nekkee li leen jox nii nañ ko continuer gën ko amplifier maanaam gën a yokk baar bi ba mu kawe de telle sorte que ñun ñu beneen projet bu ñëwee xëj na man maa fay nekk wala wala wala doon man mais keneen bu ñëwee. mu ñu mun a ànd ak projet boobu donc ñun ñii dañ leen di préparer maanaam dañ leen di defar pour que ñoom ñu mun a bokk ca projet bi ñëw après. projet bi wax dëgg yàlla fekkoon nañu ñuy liggéey waaye dañoo ñëw yokkal ñu suñu liggéey jàppale ñu ci formation ndaxte fi mu nekk nii nit ki boo ko formé jàngal ko ba mu mokkal lu mu bugg a liggéey dina ko liggéey mu amal ko njëriñ biñ ñu formé ba pare dañoo wutal aussi matériel wutal nañ ñu matériel. jàppale nañ ñu ba am autorisation de fabrication kon lolu yokkute la kon am nañ bu baax ci suñu liggéey ndaxte transformatrice bu fekkee ne tey formation bu dëgër amna équipement xam fi muy tek tankam am autorisation de fabrication mën jaay ay produits am fu mu toll lolu yokkute la te grâce à Clousa. xam nga chiffre d'affaires mom. en général ñun jigéen ñi duñu bëgg di wax luñu am waaye nak wax dëgg Yalla am nañ mom par rapport ak fimu ñu fekkoon wax dëgg Yalla ñu ngi doon am mais vraiment trois ans nous ñu avec le projet Koulouza bi avons, nañ ne am nañ bu baax te de nañu des ñu nous fi duñu ko mukk Nous ko ko de pérenniser ba nga ne projet bu ñëwit dana Koulouza na fi ñim ko defoon am fait, fayda duñ ci des choses. ci pérennisation bi xalaat nañ depuis nga deux ans troisième année bi ñu dugg rek nga xam ne léegi xam nañ ne projet baa ngi jeex xalaatoon nañ pérennisation. ma doon gën a rafetlu ka bu am lu mel ndaje ndaje mu mel ni bu amee te projet bi ñu ubbee ko fii war koo collecté waate fi mun nar fee jeexe collectivité locale yooyu ñoom mair yi ko jiite war nañ mën di teew ci ndaje yu mel ni wala seen i action di fi teew wala seen ndaw loo xam ne sës na si ñoom man di nettaliwaat li fi jóge man fa mën koy fekke parce que li feeñ fii tey. bu doon lu luñ ko mën a yóbbu ci chaque commune ñu teg ko fa dina dina motiver conseil ya fa nekk ak commune ba fa nekk ba lépp lu jigéen ñi soxla lépp lu pol police soxla ñu mën ko faa am parce que lii euh, dafa nekk lu am solo si ñoom te collectivité locale yi ñoom euh, bu projet bi xawee taxaw tuuti war nañu mën a jéem ci seen matuwaay ak ci seen man mën ak seen kàttan yi leen yàlla jox ñu jéem a accompagner euh, pôle yooyu waaye accompagner jigéen ñooñu ba seen liggéey bañ a taxaw